أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا هي محطة العاجال ومقادر الأعمال فادل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمن للطاعات تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة تزافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله إخواني سنوردها لمن لإخواننا حتى يسحل فهمها ومعناها مبكيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi xam ngeen ne guddi yi ak bëccëg yi weer yeeg at yi day dox di daw daw bu gaaw di romb romb bu gaaw lool waaye bis yooyu ak seeni guddi weer yooyu ak seeni at gaaw googu mu gaaw ak romb googu muy romb yépp nanu xam ne mi ngi jeexital ci dundu doomu aadama saa yu bés yi demee jàppal ne samay bis ñoo wàññeeku saa yoo déggee ay weer yu jeex xamal ne say weer ñoo dem saa yoo déggee am na at bu jeex xamal ne sa dund moo wàññeeku yow doomu aadama yow jullit waaye ci bis yooyoog seeni guddeeg seeni bëccëg ak seeni weer ak seeni at gaaw gi muy gaaw yépp ak wane gi muy jeexital ci sa dund am na ci waxtu yoo xam ne bés yoo xam ne guddi yoo xam ne bëccëg yoo xam ne weer yoo xam ne at yoo xam ne yàlla def cee def xéewal yàlla def cee def barke sunu borom subhaanahu wa taala bëgg bim nu bëgg xéewal yooyu mu def ci bés yooyu guddi yooyu ak seeni bëccëg ak at yeeg weer yi bëgg nu ci góor góorlu pour sàkku tiyaaba bëgg moom yàlla tabaraka wa taala nun nu sonn pour mu jéggal nu ci bokk na ci bëccëg yooyu ak seeni màggaay tiyaaba yuñ ñi ciy fay bokk na ci bëccëg bii di bëccëgu bisu arafa mbokk yi bisu arafa ñëw na ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak téere yàlla bi tabaraka wa taala yuy wane ngëneel yu ci nekk moom bis boobu di bisu arafa boo ko doon takk walla nga koy lim daanaka mën nga cee lim fukki tomb ak ñett yuy wane ngëneel yi nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala def ci bisu arafa yooyu buñ ko doon lim ba ca njëkk mooy danañ gis ne yawmu arafa ahadu ayaamil ashhuril hurumi bisu arafa benn la ci bëccëg ci weer yooyu nga xam ne moom la yàlla di wax ne weer yu ñu ara yu ñu araamal ku ci xeex ashharul hurum ashhurul hurum dafa am ay weer yu yàlla di tere jaam bi mu xeex ci jaam bi tooñ ci loolu sunu borom subhaanahu wa taala wax na ko ci suratu tawba aaya 39 mu ne inna iddata shuhuri inda allah اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم sunu borom nee na li mu weer ya ca moom fukki weer la ak ñaar loolu mu ngi ci téere yàlla bi ma ngi ko tàmbalee ca bëccëg ba yàlla bindee asamaan ak suuf yàlla mu ne am na ci ñeenti weer yoo xam ne araamal nañ ku ci xeex wal ashhurul hurum mu ne ñeenti weer yooyu mooy zul iqda zul hijja muharram ak rajab ñeenti weer yi soo leen doon xool da nga fekk bëccëgu arafa nekk benn bis ci ñeenti weer yi soo ko xoolee ci zul iqda gisoo ko mu ngi ci zul hijja fan la fa bisu arafa nekk weer wi nu nekk mooy zul hijja mooy weeru tabaski fukki fan yi mooy fukki fanu tabaski juróom-ñeenteelu fan bi mooy bisu arafa yàlla def na ren ji mu ngi nekk bisu dimanche kon bokk na ci mbokk yi xéewal yi ñu yàlla defal mooy fukki fanu tabaski mu defal ñu ci yow mu arafa yow mu arafa bokk ci bés yi nga xam ne yàlla nga ko def ci ñeenti weer yooyu yàlla di ñu tere ñu takk fi xare ñaareel bi yow mu arafa ahadu ayaami ashhurul hajj qaala allahu aza wa jal alhajju ashhurun maalumat wa ashharu wa ashharu lhajji hiya shawal zul iqda zul hijja ñaareel bi ci njëriñ yi xéewal yi nga xam ne yàlla defal na ko ci bis arafat benn la ci bëccëg yi weer yooyu nga weer boobu nga xam ne weer yooyu nga xam ne mooy weeru aj weeru aj yan weer la yàlla subhanahu wa taala wax ci suratul baqara aya 197 mu ne alhajju ashhurun maalumaat aj ay weer la yu ñu xam bokk na ci li sonal doomu aadama yi tey jàpp ne aj fukki fan kese la buñ demee aji ñëwaat fekk aj ñetti weer la ci ñetti weer yooyu nga ko war a préparer loolu moo tax gars yi démb yi seen aj day jaar yoon ndax ki préparé ñetti weer ki préparé tukkeem ñetti weer nu raw la ki ko préparé benn fan nu raw la ki ko préparé fukki fan toog ba ñu ne la suba ngay dem màkk nga doog a ut benn numéro téléphone benn sëriñ wala benn oustaz naan ko ah man kat yàlla daf maa baaxee damaa war a aji màkk léegi ne damaa bëgg dama laa bëgg a jege nga commencé maa jàngal nu ñuy jàppee nu ñuy sangoo seet ah su may dem jàkkale laay wax ak fu ma waaw loolu foo jëm mooy da ngay dem aj màkk def tourisme ñëwaat doo fa jëli dara parce que préparé woo ko aj ñetti weer la mbokk yi ñetti weer yooyu la ñu yàlla wax ci alquran shawwal la zul iqda zul hijja ñetti weer yi mooy weeru aj moom la yàlla naan ashurun maalumaat mooy weer yi ñu xam nga xam ne booy préparé aji da nga koy commencé shawwal nga préparé préparé ko zul iqda nga préparé ko zul hijja su ramadan jeexee rek shawwal taxaw na foofu nga ko war a préparé bu ñu wooree koor gi jeex na rek weer way teru mooy weeru shawal acca préparé bu dee da ngay aji bis boobu nag ba keroog ñuy ñëwaat aha noonu la ñuy waajalee mbokk jullit yi loolu mooy ñaareelu ngëneel yi ñu sunu borom subhanahu wa taala defal ci bisu arafa ñetteel mooy yowmu arafa ahadu ayam almaalumat allati athna allahu alayha fi kitabih قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات سورة الحج آية 28 bokk na ci ngëneel yi ñu yàlla defal ci bisu arafa pour nu war koo taxaw màggal ko mooy bisu arafa benn fan la ci fan yi nga xam ne moom la nu xam ahadul ayaam al maalumaat benn fan ci fan yi ñu xam fan yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala tagg na fan boobu bëccëg boobu borom bi tagg na bëccëg bi ci alquran borom bi nee na bés boobu doomu aadama yi dañ koy fekke teewe ko ngir jële fa njëriñ tudd fa yàlla ah ci bés yooyu nga xam ne bés yu ñu xam la mooy fukki fanu tabaski fukki fanu tabaski soo koy lim foog nga limaale ci bésu arafa te bés yooyu bés la yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala nee na nit ñi dañ koy fekke ca màkka pour lan pour jële fa xéewal jële fa tiyaaba jële fa yiw waaye lan pour dajale fa dajaloo fa pour tudd yàlla tabaraka wa taala màggal ko ci bés yooyu nga xam ne bés yi ñu xam la qaala ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne al ayaam al maalumat asara zulhijja ibnu abbas nee na bis yooyu yàlla di wax ca alquran naan ayaam almaalumaat bëccëg yooyu nga xam ne bëccëg yu ñu xam la nee na mooy fukki fanu tabaski ci alquran ku ko miin di ko jàng da nga fa fekk ayaaman maadudaat fekk fa ayaaman maalumaat ayaaman maadudaat koor koor la weer la day jeex 29 jours wala 30 mooy ayaam maadudaat fan yu ñu lim la da nga koy tàmbali di woor gis nga am na séeréer soo xam ne bu nu tàmbalee di woor dañuy jënd kere bu xonk bu ñu waree benn fan daan ne benn ak kere bi suñu waree suba ñu ne ñaar gis nga ayaaman maadudaat sooy woor da ngay compter ayaaman maalumaat bëccëg yu ñu xam mooy ca tabaski kañ lañ ko xam depuis Ibrahima alayhi salaam ba ba léegi nit ñi xam nañ lan mooy tabaski saa yoo nee tabaski rek nit ñi seen xel dem na ci Ibrahima moo tax yàlla ne ayaaman maalumaat mbokk jullit yi ñeenteel ci sunu borom subhaanahu wa taala xéewal yi ñu defal pour ñu war a màggal bëccëgu arafa mooy yowmu arafa ahadul ayaam al asara allati aqsama allahu biha sunu borom subhaanahu wa taala def na bisu arafa ci bëccëg yooyu nga xam ne def cee giñ ku toll ne sunu borom dana giñ ci lu amul maanaa ngeen defa ne dana gëñ ci lu amul njëriñ moom sunu borom ngeen defa ne dana giñ ci lu màggul sunu borom dafa giñ ci fukki fanu tabaski ñun ñëpp jàng nañ ko ci alquran lan moo tax yàlla giñ ci mooy wone xéewal yi ci nekk ak ngëneel yi ak daraja ji sunu borom nee na jalla jalaaluhu wal fajri wa layaalin ashrin giñ naa sama màggaay man yàlla ci fajar bu fenkee waaye giñ naa ci wala yaalin ashri mooy fukki fanu tabaski guddi yooyu borom bi nee na giñ naa ci ci suratul fajr ibnu abbas nee na innaha ashara zilhijja nee na mooy fukki fanu tabaski sëriñ bu tudd ibnu kasir loolu la wax moom sax yemul ci ne loolu la waaye dafa ne wa huwa saxiix loolu mooy li wér ku koy firi wala yaalin ashrin nang ko firee fukki guddi yu nekk ci bisu tabaski mooy ci njëlbéenu bis yow mooy ñeenteel mbokk jullit yi juróomeel bi pour wane ne ngëneel yi ci nekk mooy yowmu arafa ahadu ayaam al ashara al mufaddala fi amaliha ala gayriha min al ayaami sana bisu arafa benn la ci fukki fan yi nga xam ne yàlla def na ci xéewal yàlla màggal na fukki fan yooyu ci ku ci jaamu yàlla ci bis yi nga xam ne mu ngi ci bisu at yi at bu nu nekk seeni bëccëg seeni guddi lu ñuy màgg màgg màgg di rëy bisu arafa moo leen gën a màgg fukki fanu tabaski moo leen gën a màgg fukki fanu tabaski li ñuy màgg màgg màgg bisu arafa ci gën a màgg bisu arafa li muy màgg màgg màgg màgg bés bi ñuy tabaski moo ko gën a màgg kon mbokki jullit yi ay ngëneel lanu sunu borom subhanahu wa taala indil yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ma min amalin azka inda allahi aza wa jal wala azamu ajaran min xayrin yamaluhu fi ashara al adha yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na amul benn bis bëccëg buy gën a màgg bés bi nga xam ne toll na ne bisu arafa nee na kenn du jaamu yàlla kenn du màggal kenn def benn tiyaaba boo xamante ne di nga ko amee ci fukki fanu tabaski qiila wala aljihaad fi sabilillah ñu ne ko waa yenent xeex ci yoonu yàlla nag jihaad nag qaala wala aljihaad fi sabilillah mu ne même bu dee jihaad ki gàddu jaaseem gàddu fasam dem reyante ji waa ji jaamu yàlla ci fukki fanu tabaski moo ko ëpp tiyaaba moom mi dem jihaad kon mbokk yi li nu waxoon sànq ci la ñuy delluwaat sunu borooma nu bëgg ba saayu bis bu ñuy jaamu yàlla bu jeexee mu indil ñu beneen barki démb noo ngi nekkoon ci weeru koor doon ko màggal di ko kañ di wax xéewal yi ci nekk koor jeex yàlla indil ñu tabaski waaye balaa tabaski yegg si sa xoolal fukki fan yi ba pare yàlla di la wax xéewal yi ci nekk pour nga war a taxaw yow doomu aadama moo tax perte na ëllëg ku dajeeg yàlla ay loxoy kese ab jullit boo xam ne tiyaaba yëpp dina ko romb chaque jour bu benn bëccëg demee guddi dem weer ñëw at ñëw chaque jour ñu naan la lii boo ci defee lii am lii lii boo ci defee lii yàlla bëgg la lii boo ci defee lii doomu aadama bi jàpp di xullee du jaamu yàlla ah du màggal yàlla du tuub ay bàkkaaram ba dee dem ci yàlla tabaaraka wa taala ñu ñëw ñu ne ko loo indaale mu ne man kay maa ngi nii rek damaa bëggoon tuub rek ndeke dee yegsi na allahu akbar yal na nu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko juróom benneel buy wane ngëneel xéewal yi nekk ci bisu arafa yowmu arafa akmal allahu fihi lmilla bisu arafa la yàlla motale lépp xeet wi xeet wi xéewal yi yàlla mujjee wàcce ci ñoom bisu arafa la ko yàlla wàcc mu ne wa atamma bihi nicma keroog ci la yàlla tabaraka wa taala matal xéewal yi mu doon wàcce ci xeet wi omar ibnul xataab nee na man daal omar dama doon waxtaan toog ci benn barab rek ndeke benn yahud xool na ma ne ma yaa amir almuminin ayu aaya fi kitaabikum taqra'unaha law alayna ma'ashara alyahudi nuzilat la taxasna zalika yawma al iid allahu akbar da ngay xool sax ndeysaan mbokk yi boo ñuy xoolaat tey nun jullit yi dang nu yërëm lu ko waral mooy yahud yi sax wala nasaraan yi nga xam ne jàng nan comprendre nan aduna ak diine di nga gis ñoo gën a dégg diine ci yenn jullit yi ab yahud moo xool Umar ne ko amirul muminin yow ki jiite jullit yi am na benn aaya ci alquran su fekkoon ne aaya boobu ci ñun yahud yi la wàcc ñun yahud yi danañ jàpp jour boobu def ko jouru feet benn aaya ngi ci seen alquran bii seen kaamil bii su fekkoon ne ci ñun yahud yi la aaya boobu wàcc ci sunu bible la ñëw bis boobu ñun bisu feet lañ koy def Omar ne ko waaw waaw aaya boobu day moom la yàlla naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan ci suratul maida aaya 5 lu tax aaya baa nga wàcc ci yonent bi ci bisu arafaat ci naaj bu tàng bi ci diggu njolloor gi yonent baa ngi tàng bay siit allahu akbar sahaba yaa ngi yërëm yonent bi kenn ci ñoom moo jël kaalaam daal di koy tàllal ñu jël kaala gi takk ci ñeenti bant ci ñetti ñeenti koñ yi ñeenti sahaaba ñëw ku nekk téye benn bant bi ñu tiimale yonent bi sër bi ndax lan ndax tàngaayu naaj bi di wàcc ci sër bi bañ a wàcc ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog la aaya bi wàcc ci yonent bi foofu yahud bi nee na bu fekkoon ne ci lu la wàcc ñun ñu feetu ko lan la aaya bi wax yàlla nee na tey akmaltu lakumu diin tey laa matal diine ji moo tax perte nañ ba ñu yokkee ci suñu diine diine ji mat na yàlla wàcce ko ci yonent bi ba yàlla ne mat na yonent bi dem ñun ñu ñëw indi leneen di ko ci dugal koo wax mu ne dañuy bëgg lu baax lu baax rek ñu ci dugal su fekkee da ngaa yor sa lu baax téye ko yonent bi moo la gën a xam lu baax moom mu indi lu baax ba lu baax li doy yàlla ne lu baax li mat na yow nga ne déedéet yàlla baaxul xaaral ma yokk ci leneen moo tax xoolal diine ji liñ ci yokk yëpp da koo yàq lépp ko yàq donte ne ki ko indi danoon wax ne ah xoolal man dama non dama bëgg a defar léeg-léeg nga gis léeg-léeg benn waay di ngénte woo ma téléphone suba damay tudd de ma ne waaw waaw mën ngaa ñëw ah incha allah waaw dama bëgg ngeen ñëw wàcce kaamil fan lañ gisee tudd ak wàcce kaamil fan la ñu jàngee ci alxuraan laaw ak sunna yonent bi ne bu ngeen di tudd xale bu xale baa ngi nii balaa ngeen koy tudd na ngeen wàcce kaamil soo demee ci bàyyi xale bi def loolu wala maamam wala benn mbokkam nga ne ko yow loolu ku la ko def la mu ne non lu baax rek xoolal pourtant lu baax la ci jublu de non dama am doom yàlla may na ma doom insha allah damay jël téer alquran wàccee kenn du fi musique kenn du fi nangam alquran waa ji li mu wax est ce que rafet na wala rafetul waaye baaxul xam nga lu tax baaxul su fekkoon ne baax na yonent bi bu muy tudd mu jàng alquran ba pare doog a tudd moo ñu gën a xam alquran bi dañoo war a xam ne lu baax du ñun ñoo koy xalaat rek daal di koy def déedéet lu baax loo xalaat bu fekkoon ne baax na ci place bi yonent bi def ko waaw yonent bi daawul def loolu moo moo suuli néew dem ba ci armeel yi di jàng alxuraan a yam tey boo newee Sénégal kenn di dem ci armeel di jàng alxuraan ñu ne inna lillah yonent bi ko tere laa taj'alu buyutakum maqabir yonent bi ne bu leen def seen kër yi bàmmeel seen kër yi dee leen ci jàng baxara loolu loo ciy dégg boo amee xel bu leen def seen kër yi comme bàmmeel pourtant ki koy def soo ko waxee mu ne non loolu ah moo tax du du ñun luñ ñu wax rafet na rek xoolal tey sabar yi ci ndë sabar yi takk ay sabar guddi laa ilaha illallah rëgët di tëgg soo nee soo demoon tey ci ñooñu di tëgg guddi seen sabar yooyu di ci boole laa ilaha illallah nga leen asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam nga ne waaw li ñu ne yow yow da ngaa rep waaye kii dóor leen ko waaye nit ñi di tudd yàlla mu naan kan moo la wax ne bu ñuy tudd yàlla dañ cee war a boole ay sabar ndax yonent bi alayhi salaam bu daan tudd yàlla da ciy boole ay sabar voilà loolu mooy wax bi du question ñun dañuy toog fii rek lu nu xool mu rafet rek ñu daal di jël dugal ci diina ji non diina ji ay sart la lu yàlla indi jox ko yonent bi loolooy li baax li keneen indi baaxul su baaxoon yàlla jox ko yonent bi na ko yóbbul aaya baa ngi ni moo ko wax al yawma akmaltu lakum diinakum tey laa matal diina ji waaw mat na luñ ne la mat na ba pare sëñ bi da ngaa bëgg lu baax demal nga julli ji demal nga jàpp nga julli da ngaa bëgg lu baax su weeru ko da ngaa bëgg lu baax bu fekkoon ne loolu dong moo ci jublu li yonent bi indi dong doy na ndax kenn ci ñun mënul def li yonent bi indi ba mu jeex tàkk li yonent bi indi mënuñu ko jeexal dañuy def ba sonn bàyyi waaw yow li nga xam ne mënoo ko jeexal ngay yokk ah kenn ci ñun tey bu doon ndékk ñu tegal ko kilo kilo mburu mu xamp xamp xamp guux guux ne suur naa ñu ne ko demal demal rek mu dem ba jaag ne suur naa ñu ne ko waaye sëñ bi yokkal waa ji nee na mënu maa jeexal kilo ñu indil ko fukki kilo mooy waa ji tiimoon ci góol boolu ginaar di lekk da doon sàcc ginaar ñu jàpp ko waaw bi mu siggee gaa yi tiimale ko ay pistolet ne ko lekkal mu lekk lekk lekk ba jaag daal di siggi ne gars yi suur naa ñu ne ko eh mu naa ñu ne ko lekkal lañ wax mu lekk lekk lekk siggi ne suur naa ñu ne ko yow di nga lekk wala doo lekk mu commencé jooy xam nga ku tiim boolu ginaar di jooy dafa neexatul voilà loolu mooy nun li ñuy def nii mooy li ñuy def mooy yàlla dafa ñoo indil ba pare li ñu yàlla indil mënuñu ko jeexal ñu ne dañuy jëli keneen lu mu indi moo tax diine ji sabar yi ci la bokk xeesal bi ci la bokk mees bi ci la bokk musique bi ci la bokk ah laa ilaha illallah loo xalaat rek dugal nañ ko ci diine soo waxee rek ñu ne diine ak jamono wala ñu ne na xumb te dagan na xumb te dagan fan lañ jàngee ci diine yàlla ne na xumb te dagan ndax ñun tey sunu diine lii nuy dundee lii la sahaaba yi doon dundee ñoom aboubacar omar ousmane ali kon aaya bi dafa la woon leeralal lu mat al yawma akmaltu lakum diinakum tey laa matal diine ji yàlla mu ne wa atmamtu alaykum ni'mati samay xéewal sax tey mottali naa ko ci yéen wa radaytu lakum al islaama diinan gërëm naa islaam mu nekk seen diine amul leneen lu ngeen di nekk lu ma gërëm lu dul islaam keneen loo nekk lu dul islaam boo dee di nga réccu islaam rek ngay dee nekk jullit dee nekk ci islaam bu la dugalee ci bàmmeel nga tàlli wallahi boo dee ci leneen lu dul islaam bu la dugalee ci bàmmeel bi nga réccu yàlla na nu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla na nu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa daayan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira mbokk yi juróom juróom benneel juróom ñaareel ci ngëneel yi yàlla di wax ci arafa mooy siyaamu yowmu arafa mooy woor bi su arafa faqad jaa al fadl fi siyaami haada al yawmi ñëw na jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ñuy soññ di ñu wax xéewal yi nekk ci woor bi su arafa mu ne annahu ahadu ayaami tisa zilhijja benn la ci juróom ñeenti fan yi nekk ci weeru tabaski yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa yowmu asura woor ko mu ne kaana sallallahu alayhi wa sallam yasuumu tisa zilhijja wa yowmu asura wa salaasa ayaam min kulli shahr aw il isnayni min shahr wa xamis nee na hadis boobu saxul albani fi kitaabi sahih abi daawud yonent bi alayhi salaatu salaam daana woor bis yi fukki fanu tabaski juróom-ñeenti fan yi daana ko woor daana woor bisu arafa daana woor ñetti fan ci ayaam ayaamul biid le 13 le 14 le 15 bu ñu jullee lundi mardi ba mercredi mooy le 13 ba ca tegu mooy la 14 ba ca tegu mooy la 15 ñetti fan yooyu ci calendrier islam laa leen di wax waxuma calendrier tubaab bi chaque jour le 13 la 14 la 15 yonent bi daana ko woor waaye mbokk yi yonent bi daana woor lundi waaye yonent bi daana woor jeudi almuhimu ci biir hadis bi yonent bi day wax war na noo woor bi su arafa nun ñi ajiwul mu ne ñëw na ba tey di ñëw di wax xaas pour woor bi su arafa tiyaaba ci nekk mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam su ila an siyaami yow mu arafa dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu salaam waaw woor bi su arafa moom yan tiyaaba moo ci nekk mu ne yukaffiru sanatil maadiya wa sanatil qaabila soo wooree bi su arafa bàkkaar yi nga amoon at bii passé yàlla jéggal na la ko yii di ñëw at bii di ñëw bàkkaar yooyu tamit yàlla baal na la ko xoolal nga neel gu réy googu boo wooree bi su arafa dimanche bii di ñëw soo ko wooree yàlla jéggal na la bàkkaar yi nga passé woon waaye yii di ñëw ci at bi sax yàlla baal na la loolu fan lañ koy jëlee moo tax islam rek mooy dëgg suñ ko comprendre xam ko jàng ko mooy lépp lu ñu def rek yàlla dañuy bindal tiyaaba ay tiyaaba kese la soo paasee lii rek lii ñëw soo paasee lii lii ñëw mbokk yi juróom-ñetteel mooy annahu yawmul iid li ahlil mawqif mooy feetu bisub taxawaay ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yawmu arafa bisu arafa wa yawmu nahr ak bis bi nga xam ne ci la ñuy rey wa ayaamil muna ak bis yi nga xam ne ci la ñuy sànni jamra nee na bisu feet la iiduna ahlal islam nee na ñun jullit yi bis yooyu sunu feet la bisu arafa ci sunu feet la bokk bis bi ñuy rendi xar yi ci sunu feet la bokk waaye bis yi nga xam ne ci la ñuy sànni jamra moo tax chaque jour ci bis yooyu depuis bi weer wi teroo fu nu nekk war na noo wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila rawatina nag ñetti fan yooyu bisu arafaat bisu julli ak bés ca tegu yépp fu nu toll dañu war di kàbbar même sax loo dee dee boog boog nga def ko ci journée bi benn yoon wala juróomi yoon borom xam-xam yi sax dañuy wax ginnaaw julli juróom ju nekk war nañoo kàbbar saa yu ñu sëlmalee imaam sëlmalee waa jàkka ji war nañoo kàbbar mais yooyu xoolal ci suñu jàkka yi doo ko gis parce que jàngunu diine xamunu ko diine intéressé wuñ lu ñu intéressé rek mooy lii ku ko def rek am xaalis lii ko def liggéey lii ko def tukki allahu akbar loolu de moom ñëpp a koy def lii ku ko def rek bu soobee yàlla doo tàqali ko xaalis benn waay ndeysaan ci at yu yàgg daana nax nit ñi ay téere lay indi bu ñu jullee jumaa ba pare rek mu taxaw génn téere yi daan ne billahi wallahi taalaahi lii may jaay ku ko jënd doo tàqalikoog dërëm gaa yi rang ku jënd mu ne ku jënd nag bul dem taxawal moo wax la nooy def pour doo tàqalikoog dërëm da ngay jël kayit bi nga dem ba ca uude bay aw nga jël dërëm dugal ko ci mu awal la ko wallahi doo tàqalikoog dërëm wax na dëgg doo tàqalikoog dërëm parce que téere bi dërëm a ngi ci biir waaye gars yi boo nee doo tàqalikoog dërëm yaakaar ne ay milliards ngay am sa poos fekk waa ji wax na dëgg nax na la te lim koy jaayee dafa yomb de 500 nga gis gars yi dañuy rang ba ba yegg terminus ba waaw jox ma sëñ bi maa fi jiitu kii di xeex pour lan pour bëggub dërëm dërëm nag sax soo ko amoon fii lay yem dërëm ak tiyaaba lan moo nu war a ñor mbokk yi wallaahi loo mën a am amal lu la neex ci àdduna bi amal ay oto yu du yuy naaw amal jet privé ndeysaan amal lu la neex waaye bis bu sa ruu génnee ci sa yaram bi loolu nga amoon perte nga ko jeex na amatoo ji dërëm benn waaye nee na ndeysaan benn milliardaire u Sénégal dafa dee ñu woo doomam taawam mu ñëw ñu jël xaalis 10 000 francs daal di koy jox ne ko demal marché nga jënd lu ñu defaree góor gi xale bi dem ñëwaat ndeysaan indiwaat weccit 5000 mu toog di jooy ñu ne ko lan la mu ne dama xam ne sama papa milliards yi mu am yëpp 10 000 bi ngeen jox indiwaat naa weccit 10 000 bi sax yóbbu ko àllaaxira fi mu nekk nii nit ku am alal su dee ñu jël 5000 francs jox waa ji ne ko demal marché nga jënd li ñu koy préparé bu demee juróom-ñaari mètre per kaal lay jënd ñetti parfum saabu eau de javel njàmpe ah cuuraay loolu yëpp boo ko xoolee matul 4000 day indiwaat weccit ana li mu amoon ana li ko tere woon jaamu yàlla ana li mu doon daw moo tax yàlla mu ne zuyina linnaas hubbu sahawat min annisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ها والخيل المسومة ها لو يالا تك ci aaya ba muy jeex mu ne zalika mataaul hayati dunya loolu yëpp àdduna rek la fii ngeen koy bàyyi da ngeen dee rek ñëw ci man dañ leen góorgóorlu juróom-ñeenteel bi ci ngëneel yi mooy addu'a mbokk yi bëgg nañ bisu arafa nit ñi ñaan yàlla nan ñaan yàlla ndax yàlla génn ñu situation yi nu nekk ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yowmu arafa wa yowmu nahr ayaamu muna mu ne addu'a yowmu arafa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam xayru du'aa'i du'aa'u yowmul arafa ñaan bi gën a baax ñaan bi gën a mag mooy ñaan bisu arafa ñaan bisu arafa fukkeel mooy kasaratul itq min annaar yàlla bëri na lu mu ciy goreel nit ñi ëllëg safara bisu arafa yàlla day goreel nit ñi da leen di baal ah loolu hadis la fukkeel ak benn mooy mubahatullahi bi ahlil arafa yàlla tabaraka wa taala bisu arafa day wàcc day wàcc naan malaayika yi yéen samay malaaka xool leen sama jaam ñi inna allaha yubaahi bi ahlil arafat ahli sama yàlla day wàcc keroog dootul nekk asamaan dootul nekk arsh day wàcc bisu arafa ba jàkkaarloog jaam yi waaw bis bi yàlla di wàcc fekk yow yaa ngi ci ay caaxaan allahu akbar yaa ngi ci fo ñu ne yàlla wàcc na tey bu ñu ne woon président ñëw na place sàngam ma nga fa ma nga yor ay lettre di joxe ku fa ñëw rek di nga am xarum tabaski wallahi ñun ñëpp bu ñu sëlmalee jumaa danañ daw dem foofu wallahi alazim tey bu ñu ne woon président mu ngi stade Amadou Bari nee nañ ku fa ñëw di nga am xar yaakaar naa ne am nañu bari duñ dem jumaa da ngay wax ñu ne non fi mooy jumaa ji tey allahu akbar fukkeel ak benn ak ñaar mooy at takbir qaala al ulama anna takbir yunqasmu qismayn maanaam takbir yi ma doon wax sànq fu nekk ci bëccëg yi dañ ko war a def moo xam ginnaaw julli yi la moo xam ginnaaw waxtu yi kenn ku nekk ci ñun fu sa xel dem rek war ngaa xam ne war nga takbir fukkeel ak ñett mooy ruknul hajjil azim arafa mooy ponk aj bi gën a rëy ndax arafa ku ko tardé rek sa aj yàqu na kii aj fu nekk mën nga faa rëcc dem defi ko mën ngaa fayaat tawaaf mën nga ko fay mën nga fay safa ak marwa waaye arafaat suñu taxawee arafaat bëccëg suba lañ fay taxaw 9 heures ba julli fa tisbaar ak takusaan kenn du fa julli timis ñuy waaj a départ jëm Musdalifa nga tardé perte nga da ngay ajiwaat amatoo aj moo tax yonent bi ne alxajju arafa aj arafa la kon mbokk yi fukki tomb ak ñett yi moom la nu sunu borom subhanahu wa taala defal ci bisu arafa kon war nañ cee góorgóorlu li ci gën a néew nun ñu nekk fii war na noo xam ne danoo war a woor te bisu dimanche la ku ci repp nag naan noo arafaat damay bàyyi ba lëndi wala damay bàyyi ba beneen kii ma woor ko ndax ara ñun sunu arafaat am nga waa Sénégal dañ doon wax ne mënuñoo julli ndoog waa Màkka loolu la doon wax fii non waa Màkka bu ñu jullee tey ñun suba lañ war a julli ah korite gi passé de ñu nag waa Màkka ñoo jullindoo te yaakaar naa ne lëndi ñu nag waa Màkka ñoo jullindoo moo tax dëgg rek mooy mujj day yàgg rek coow li day bëri rek ñuy dem rek waaye dëgg dong mooy mujj parce que dëgg la yàlla bëgg dañ doon wax loolu mënut a nekk ñu nag ñoom 3 heures de temps la ñu rawantee pourtant korité def nañ ko de ñoo julleendoo tabaskee ngi nii da nga daan gis sénégalais boo xam ne dañuy wax arafat de bisu dimanche la mu ne non arafat waa màkk ñun suñu bos lundi la lundi nekk bisu tabaski julli di di tabaski nga gis waa ji fii mu woor yow sa waay lan la julli woo ma ne non non ñun ñun mardi la ñuy julli quoi ndax tey la arafa fu nga- fu ñu jëlee alxuraan ñaari arafa léegi nag lan mooy wane loolu mooy suba dimanche bii di ñëw acca ku dëkk Sénégal bul woor bàyyil ba lundi nga woor soo ko neexee loolu mu ne la non lundi bisu julli waa léegi kon ana arafaat bi nga doon woor daaw ak daaw di jëkk kon wooroo woon arafaat arafaat mooy bis bu nit ñi taxawee arafa ca Makka arafa nekkul Sénégal nekkul Gambie nekkul Mali nekkul France nekkul Allemagne Makka la nekk fa la ñuy taxaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane nan woor bis boobu màggaayam mooy wane yàlla dafay wàcc léegi na nga bàyyi ba bis bi bees nga ne da ngay woor soo waxee ñu ne araf mos naa gis benn oustaz ci télé bi rajo Sénégal mu waxtaan ba pare daa ne waaw maa ngi fàttali mbokk yi ñun euh, bésu sàngam la ñuy woor arafaat mu pare rek ubbi antenne benn waaye woo ko asalaamaaleykum waaleykum mu ne waaw oustaz sàng dama leen nga ni bis sàngam mooy arafaat mu ne waaw ñun waa Sénégal sunu arafaat ñun waa Sénégal fu ñu jëlee arafaat yooyu esprit yooyu xalaat yooyu xel yooyu wala ñoo màkk bokkuñu diine yooyu lañ war a génne suñu bopp yi di nga gis ujaat buy dem màkk ñëw tàggu sëriñam mu ne ko bu fa jël dara de bu fa xool dara bu fa jëlee dara sooy dem màkk ñu ne bu fa jëlee dara bu fa xool dara mooy doo fi indi dara xanaa xamu leen diine ji màkk la jóge ñëw fii jógewul fii dem màkk loolu lañ war a def suñu bopp yi diine ji màkk la jóge ñëw fii kon nag tey jii bu ñuy jublu léegi bu imaam bi taxawee fii fan la ñuy jublu lañ jublu feneen aywa bul jublu màkk kon kay bu fekkee màkk doyu la bul jublu foofu acca alxuraan bi ñuy jàng fan la wàcc màkk yonent bi ñuy topp fu mu wàcc màkk ci waa màkk la bokk bañ nañ ko sax ba fa la juddee da ngay dem gis fa ñu bind baytul lazi wulida fii rasul kër gi la yonent bi juddoo waaw loolu nag yàlla moo leen ko defal waaye tekkiwul ne ñun dañ leen a war a jaamu déedéet ñun duñ jaamu waa màkk de waaye dañuy topp sunna yi wàcc màkk yonent bi màkk la indee diine ji fa lañ ko leeralee texte yooyu yii ñuy wax fa la wàcc kon foog ñu topp texte yooyu mbokk jullit yi maa ngi soññ sama bopp di leen soññ ñu góorgóorlu ci bisu arafa su bisu arafa jeexee ñu xam ne suba ca suba sa tabaski la tabaski xam ngeen àtte yi ci nekk di nga gis ci biir réew mi ponkal moo xam ne jullit boo xam ne dem na jënd xar jaamu ci yàlla góorgóorlu ba yàlla may ko xar bisu tabaski xar mi daal di yàqu reyaguñ xar mi waaye yàqu na jóge jàkka ja imaam rey na nga daw ñëw sa kër ana sa doom mu ne waaw nga ne ko bismillah indi leen xar mi acca bismillah na xar mi jàpp nañ ko jàppal dog koo rey loolu am na Sénégal am na ñuy jàppal xar yi bala ñu leen di rey waaw jàppal leen ko ngis waa gawaa ji commencé raxas tànk yi ci kanam bis sunu benn waaye mu ngi fi toog ci jàkka ji mu ngi ci première sape bi papaam da ko ne nañ jàppal xar mi ñu commencé pare xar mi saw mu ne papa njàpp mi yàqu na mu ne ko nañ ko rey rek beneen bi mooy xar mi buñ koy rey nga gis waa kër gi ñëw di capp ci deret bi di ji- di def seen i jë deret boobu di génn ci xar bi sobe la bañ nañ ko bañ ñëw ki rendi xar bi ak gi doy woon deret bi laal ko lu ëpp juróomi dërëm seen njàpp yàqu na deret sobe la lépp lu la laal ci deret bu ëppee juróomi dërëm sobe la léegi naka ngay jëlee deret boobu di ko capp deret boobu sobe la ak yeneen yu nekk ci tabaski nanu mooy tandiku bidaa yooyu nañ mooy tandiku bokkaale yooyu tabaski yàllaa ko moom lan yanaala allaha luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa minkum allahuma اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمون اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله